seen secteur muy tourisme dafa nekk ci xolu plan Sénégal émergent nekk ci banqaas yi gën a rëy ya nga xam ne ñoom la ñuy wéeru pour defar réew mi kon ñoom njiitu réew mi daf leen fonk loolu waral gis ngeen bi mbas mi amee ba léegi alal bu bëree bëri la ci président Macky Sall dugal pour secteur mën a taxaw kon bu ñu toogee ba tey di waxtaan ci naka la ñuy fexe ba gën leen dëgëral gën leen renforcer ci ay koppar ànd ci ak ay banque ñaari banque muy NSIA ak BND c'est parce que li ñu weesu euh, traversé nañ ko ak jafe-jafe dëgg la mais traversé nañ ko quand même mais fàttali que dëgg yàlla le secteur privé touristique ànd nañu ak ñoom Tant que ñu le pacte de stabilité sociale ci période mbas bi muy ben euh, bataxel bu ñu xaatimoon ak ñom and ci ak ministère du travail pour que ñaari ñu mën leen muy entreprise yi ak kat yi kon loolu buñ ko defee and ko ak ñom dañuy ci jaajëfal ndokkeel té te loolu dafa am solo ndax euh, lii ñu génn muy mbas mi am na noo xam ne bu ñu ko deful woon rek mënoon na gën a gaañ suñu koom-koom di wax ne aussi ñoom ànd nañu ak ñoom ci période mbas mi taxaw lu ñu naan le protocole sanitaire pour xool naka la ñuy dugg ci réew mi mais également naka la ñuy nekk dans les hôtels mais fàttali aussi que wax dëgg yàlla ñoom joué nañu rôle bu am solo ci mbas mi parce que à un moment donné gis nga ñu feebaroon ci mbas mi ci hôtel lañ leen lañ leen euh, logé woon kon ñoom liggéey bi ñu def ak bëri na te également yaatu na gis ngeen aussi que njiitu réew mi le président Macky Sall taxaw lu ñu tuddee le crédit hôtelier touristique le CHT muy mbootaay bi nga xam ne moo fi teew tey ñi ko jiitee ngi nii ñoo ci nekk membre te membre yi mooy secteur privé mooy ministère mooy FONGIP mooy ay kuréel yu am solo yoo xam ne ñooy waxtaan financement dossier benn par benn ma leen di wax ne amul benn financement bu ñuy def bu génn crédit hôtelier amul donc vraiment gouvernement a fait am ñam confiance té jox nañu chiffre sans, ci nasaran lu ëpp ay junni entreprise presque 2000 crédit hôtelier ci période mbas mi jàppale na lu mat plus de 10 milliards de besoins en fonds de roulement té gis nga financement aussi pour ko xayma dem presque 28 milliards euh, di wax aussi que li su amé c'est parce que le président Macky Sall dafa un ay tegtal bi ci ñëk moy fexe ba lii di tourisme ñu mën leen indi ligne de financement juróom fukki milliards 50 milliards yoo xam ministère des finances day indi euh, benn pàcc bi beneen pàcc bi banques yi ak seen pexe financement mobilisé ko muy 50 milliards mais également indi 25 milliards pour le transport aérien parce que bu aéroport tëjee tourisme day nekk ay tolof tolof donc ñaari bànqaas yooyu dafa amoon solo également jàppale leen donc li bi ko njiit réew mi joxe tegtal ministère des finances ànd ci ak secteur privé ànd ci ak ministère transport aérien ak tourisme ñu tànn ñaari banque muy BND ak initia banque pour que ñoom ñu doxal ko dëgg la am na ay tolof tolof parce que am na banque yoo xam ne dugg nañ fa xaalis yàgg na te génnewuñu mais gis nañu aussi naka lañ ko naka lañ koy saafara ndax am nañ banque benn banque boo xam ne jox ko juróom milliards mais financé na lu mat fukki milliards kon yaakaar naa ko bu ñu ko gën a jàppale dina mën a indi ñenn fukki milliards et keneen ko aussi bu ko joxee euh, lu toll noonu dina mën a financer euh, parce que crédit hôtelier jumtukaay la pour le secteur du tourisme et transport aérien kon war nañ ko mën a gën a ñongal dëgg la am parce que loo gis il faut que ñu koy gën a renforcer texte yi war nañ ko gën a defar parce que am na lu ñuy wax ñoom secteur privé lu am solo la li ñu tuddee double validation parce que bu fekkee crédit hôtelier day def ay réunion ay ay semaine mbaa ay weer ba tënk jàpp ay dossier ne dossier baax nañ war nañu financer dossier dem également ci banque yi war a fa également délai bu yag so defoon donc entreprise dañ ay difficulté donc lolu aussi nek na réforme yo yoo na euh, proposé crédit hôtelier comme ñom ñoy liggéey ensemble ñu proposé au gouvernement euh, ñu waxtan ci ak njiitu réew bu ñu jappalé parce que le rôle du gouvernement mooy accompagner len jappalé